أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن شيخنا wa asna xadimi rasulillahi cheikh ahmadou bamba xadim rasulillah wa an cheikhina wa xadimi xayri xadimi rasulillahi cheikh ibrahima fall lamp babu muridin mbokk jullit yi fi teew mbokk taalibe yi waa kër xaadimal mustapha sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu nu sàbbalee sunu boroom subhaanahu wa julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi am fulla ak ngor nag yëkkati sunu kàddu ca kaw et sans complexe di wax jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa sëriñ Touba xaadim rasulillah sëñ Fallou mu mel ni kàddu gi dafay kàddu gu diis gan na ndax du sama kàddu kàddu sëriñ Abdul Ahad mi jóg léegi la te am ngant ngi ngir yaramam sëñ Fallou nangul ko ko ne ma kon ubbil ma jataay bi waaye mbakkee jataay bi fii mu toll moom buñ tàllaloon loxo yi nga jàng fatiha sax neex na ko dëgg Ubaydullah bi xew ibn Cheikh yi sëñ Abdul ne ab dëkk ku ñëw fekk làmp yi tàkk ñu tëli mbedd yi ndox mi sotteeku mënoo dëkk ba neex na am waaye ku fa ñëw ba fa dara nekkul boo fa dellusee fekk ndox mi wala ngaan danga xam dëkk bi neex na wala déet coon gii nag wala coon tongoor ñoo fi daan da ànd ak sëñ Fàllu mu metti lool waaye ndekete la Serigne Touba daan wax du sax woyu Serigne Touba waaye lu ko ñor ba mu ko daan jot li ko la mu daan wax naan laysa shujaau alladi yaxmi fawarisahu yowma tiaani ida malxabu tashtailu lakin man xabda tarfan aw thana qadaman an ilmaasi fa dayka alfarisu lbato mu ne jàmbar nekkul koo xam ne daa nekk ci xare bi di wala ñu di ko rey waaye nee na jàmbar dëgg-dëgg mooy gor si mën a toog ci roqom wéetal yàlla téye batoom ba du xool lu mbër ta xool téye tànkoom ba du dox lu mbër ta dox kooko mooy jàmbar waaye du borom fetal gi du borom semmiñ wi du borom jaas yi sëñ Fallou nag ci loolu la nekk ku ñëw fii ku ko fekk Touba da xam ne sëñ Fallou moom kennal Serigne Touba rek ci la nekk ba murid yépp nag kennal ko sama mbokk yi dafa mel ne bis bi li wala fii wax dafa ala daw mi bala ma koy fàtte maa ngi nuyu monsieur le maire wala maire yi wër dëkk dëkk bi yépp tañ gën ci ràññee maire Loro di nuyu monsieur le préfet ak les force de sécurité et de défense yi mu àndal yépp te ñu ràññee leen di leen xamal ne kàddu yi dañuy ubbil rek Serigne Fallou waaye nag cant gu jëm ci yéen moom kenn képp moo ko yeyoo muy sëriñ Fallou te nun ñii di wax ak képp sëñ Modou Faty Khary jaboote lu sëñ Fallou wax rek nag neex na moom bu ngeen ko jàppalee lu mu dogal ci digganteem ak yéen rek nun dañ cay ànd ak moom ndax amuñu dara lu dul sëriñ Fallou kër gi kenn la muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary mu mat jataay bi sëkk waaye nag mooy sëñ fallu dañoo doonut ñaar kenn képp lañ mu liggéeyal ko ba ne ko foo teew rek mel na ne teew naa fa rawatina nag bi mu wootee njabootu boppam képp ñëw ñun ñëpp muy sëñ Kara muy man muy sëñ Ahmad Yadali muy sëñ Abo euh, sëñ Ali mi sëñ Jili sama magi bopp ji ak ñi ñu bokkal sëñ Maodo Fatick xëri ñëpp jàppale ne fu teew rek ci ndigalul Serigne Cheikh lañ fa teewee. rawatina nag bu dee jataay boo xam ne jataayu sëriñ Fadilu la kon autorité locale yi fi ñëw yépp te sëriñ bi ngeen wone seen cofeel ci moom seen diggante ak moom jàpp leen ne moom kese waa kër sëriñ Modou Faty Khary gépp la lépp lu ngeen bëgg ci sëriñ kër sëriñ Modou Faty Khary su ngeen ko jaaree ci sëriñ Fallu ñun jox nañ ko suñu loxo lu wax noonu la lu mu ne déet ñun ñu ne déet loolu ñuy wax ci kër sëñ Modou Faty Khary nag kër sëñ Massamba gépp noonu lañ mel lu sëñ Fallu joxañ rek ñun ñëpp ñu jóg ànd ak moom ca loola lum leen di tontu nag moo ko xam waaye ñun fu mu joxañ foofu la ñu xool kon jàpp leen ne lu ngeen defal sëriñ Fallu njabootu sëñ Modou Faty Khary gépp teg nañ ci bët njabootu sëñ Massamba gépp teg nañ ci bët jërëjëf kon euh, sëriñ euh, Karaam mi ngi may fàttali léegi njabootu Mbàkke sëñ Modou Mokhtar sama mag ji daf daan wax ne Banu la Banu ball nag ñu bari dañuy boo ko waxee rek seen xel day xalaat Mbàkke waaye ma ne Banu Balla romb na Mbàkke waxkat ba naar shérif bu mag dafa waxoon ne bi ala xabiballahi daa lana dahru fa ahmaduhum shamsun wa ibrahimu badarun bi ala xabiballahi daa lana dahru fa ahmaduhum shamsun wa ibrahimu badarun mu ne yàlla leeral na jamono jaale ko ca jëmm ja sëriñ Tubaa daan wax Muhammad ibnu Muhammad ibnu Habiballah mu ne nag askan woowu li ñuy bari bari ka ca tudd ahmadu muy sëriñ Tuubaa xaadimu rasuulillaahi ku bëgg ak ba ku bañ ab jant la ku bëgg ak ku bañ dana la tiim fa ahmaduhum shamsun wa ibrahimu mu ne kañ cay wax nag cheikh ibrahima faati mu ne bu sëñ Tuubaa dooneeb jant rek amal ngorog def ko muy weer nag ku bëgg ak ku bañ danga ca teg sa bët mu ne nag euh, fa ahmaduhum shamsun wa ibrahumu badrun wa fadiluhum wal mustafa wa masambahum awlaika qawmun kulluhum anjumun zuhru mu ne kañ wax sëñ Fallu wa fadiluhum wal mustafa sëñ Moodu Mustafa wa masambahum ak sëriñ Masamba mu ne awlaika xawmun gaa ñoo ñëw tegal sa baaraam biddiw yi ci asamaan li ñuy bari bari boo ko dee xool lum lëndëm lëndëm am na ñetti biddiw yoo xam ne foo toll di leen seen mu ne moom bu doon natt dënd bi di ko nattaleeg waa maaram nee na jàpp na ne ñetti biddiw yooyu mooy fallu Moustapha Massamba kon nag sëriñ Fallu bu ñëwee ba fii bu ñëwee ba fii def fi li toll nii li gën a sunnawu ci àdduna mooy sëriñ Fallou toog na lu yàgg tabaxut këram waaye bi muy sanc coon rek bi ñëwee benn at balaa ñaar rek jumaay téeméeri million la leen jëkk tabaxal ci penc bi won leen ne moom lu dul diine amu ci defar amu ci yàq waaye mbooloo mii rafet lool di ay jullit te jullit nag mooy muridullaahi ku ci teg sa bët danga xam ne sëñ Fallou fii mu teg tànkoom foofu la sëriñ tubaa dafa sos lu rëy sos laa wax loo xam kenn mënatu koo sos waaye ñun bu amee jom mënatuñoo sos ci wetu sëriñ tubaa waaye lu mu sos ñu sof ca sëriñ ma sëñ Fallou li sëriñ Touba sos sof nga ci bu baax li nga ci sof nag sunna kese la sunna kese nga ci sof mu mel ne buñ dee yaakaar kàddu yii ba tax sëriñ Abdul Ahad Mbakke mi jóg léegi am ngànt ñu ne ma yëkkatilal sëñ Fallou ay kàddu bala moo dugg ma leen di xamal ne daa am loo xam ne fa Fadilu mënu ko waxal boppam nag waaye ndokk bi sëriñ Bachirou suñu doom waxee léegi kàddu yu Pastef yi mu wax su ma sañoon dañ koy bàyyi mu continuer ndax kër gi lii rek moo fi nekk man miy wax ak ñi waxut ñépp li rek la ñuy dund fas yéene kennal sëriñ Touba ma kenn loon yàlla fas yéene nekkal sëriñ tubaab mi liggéey ba ñëpp summi sapo ku ne summi sa mbaxana ne ko ay la yeween Ahmadou Mbacké amoo morom bu bëggoon ngóor ba ñépp ne amoo morom mu samp ruwaayum wala mu def tarixa mbakki yu wala tarixa mbusoo bi yu waaye de déedéet sëñ Touba foo woote jëmale mu ne ay la muridullahi sëriñ Touba moomu laa ne yoonam wi sëriñ Fallou da cee liggéey nag ba bis ne tey ku bëgg ak ku bañ nag mat na sëriñ ku ne moom sëriñ Fallou ñun ñi koy wax nag ñun ñi koy wax nag ay nawleem lañ jàngalatuma la loo bind jox ma ko ma di ko yër di ko mokkal ndax yow dañoo war a barkeelu ci sa mbind waaye doonatoo gone gu ñuy toppal ca la ko waxe woon bayitam yu siiw yooyu mu ko doon waxee naan ko minni li ahmada bamba taariki naasi gayra al ilahi fa amsa sayida naasi sama kaddu yi mi ngi jóge min nii mi ngi jóge ci man xaadima jaxate kala jëm ci kan li ahmada bamba at taarik moo bàyyi lu dul yàlla an naasi moo fàtte lu dul yàlla xeyral ilaahi lu dul yàlla fa am saa ci loolu la mujj nag doon sayyidan naasi di sangum bi def kon mbokki taalibe yi du samay kaddu kaddu yi sëriñ Fallu la kër sëriñ Modou Faty Khary ak ñi ñu bokkal sëñ ma sàmba ñépp ñu ngi leen di xamal ne fii fi coon fii fi Louga fii fi Kajoor ak Njàmbur sëñ Fallu taxaw na fi taxawaay boo xam ne koo xam ne nee nga su ma gisoon sëñ Modou Faty Khary defal ko nangam boo gisee sëñ Fallu te defoo ko wax yëddu dëgg dégg naa sëñ Cheikhum sëñ Mahmadan bi njëkkee ñëw fii ci coon mu wax wax bu rafet duma ko fàtte mukk mu ne egg naa ci man ma nekk ca mbeela di sëtub sëñ sàmba ku ma nar a jox dara boo rombee sañ ma sëñ Fallu fii yët ma ko mbeela duma ko nangu ndax sëñ fàll mooy sëñ Modou Fall xëri sëñ fàll mooy sëñ Mahmadane ñu ngi tëje suñuy kàddu ki nga xam ne nii mooy sëriñ Touba te mat ko sëkk muy sëriñ Mouhamadou Mountakha ñépp ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu tamit sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te yàlla na képp ku ko wax yàlla na nga fi yàgg te yàlla na nga mu mel ne li di yëg ci seeni xol yéen taalibe yi bay bëgg a xaalu maa ngi koy bëgg a yet kon arrêté wax ji rek moo gën ci man di wax jërëjëf sëriñ Tuubaa haaka siwaaka xayru min albara wa anta xayru man illahi sawara madda ilayka allahu fadlan saara kama ilayka xaada ma lam yasara madduka ahjasa allati tafakkura أحمد يا خير بصير سكرا دعوت الله أن البصرا والجنة وأنت خير هاد البصرا فاق الأفادل للجود والكرم سلم صنب مكة كثير العلم والحكم فاق الأفادل للجود والكرم سلم صنب مكة كثير الخل والحكم asamaan jooy na suuf si jooy ma jooy ko sëriñ ma Samba Mbakke réew mi jooy na ana ku deeti roy roy lu sëriñ lu mag ba tey tomb tombal ya ginnaaw ma Samba Seex ma Samba Mbakke taaram ma Samba Mbakke taaram ba sëriñ ma Samba Mbakke taaram ba xam ñetti kaala yey ñoo Seex Bamba sëriñ Bamba bind moo ko maas sëriñ Bamba bind moo ko ni xayra xadim al musa fa innani axdimuhu bi mustafa أخدم إلى دخول الجنة دار الخرار والمنى والمنى من سن أنه يكون أبدا يردي بالنسي كختمتي برا فخار الدلال والإدلال ينغاد لي من ربيع على نور مدات قبل غضاء لمرولي مدها ومان مثلي كل ولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي تالبي بوكي خارجي ولري ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balwax di leen balax di leen jërëjëfal ci teew gii ngeen teew tey ci cant gii nga xam ne dañ ko jagleel at mu ne xaadimu rasul sunu yaakaar ja sallallahu alayhi wa sallam yaa ci Cheikh Massane Mbacke Cheikh Modou Fadel sunu turndoo ak Cheikh Modou Fatick sunu wajuróon ak ñeñ bokkal barsàq ñëpp ñaan yàlla def ko aw yiw satti leen ko bu leen ko sattee ba noppi mu dellu ko fii di nekk ci àdduna satt nu aw yiw yiwu barke wu sedd guy ànd ak xéwal ànd ak fan yu gudd yu ànd ak ànd ak xol yu bëgg Sëriñ Tuubaa leer lool ubbi ko lool amin xamal ne sant nañu cant gu rëy a rëy tàmbalee ko ci sunu mbokk yi ndax biñ ko tàmbalee ba léegi kenn ku ne dégg nga li mu yëkkati ci ay kàddu ak ni mu ko yëkkatee te nga ngëmum yàlla ak bëgg lislaam ak bëgg Xaadimu Rasuul rek moo tax ñu yëkkati ko de nun dunu dara nekkunu fenn nit ay taalibe yi Sëñ Tuubaa yi ay jaam jaamal rek yoo xam ne nun dunu dara waaye nag bëgg nañ Sëñ Tuubaa nag loolooy dara de Sëñ Tuubaa jàlle it xam na mooy kan nag xam na lu mu lu mu ne defal nag <laughs> ndax nag loo bëgg di bëgg daal bi war nga xam ko la defal dara te Sëriñ Tuubaa am na lu mu defal ci suñu biir loo xam ne yëg nañ ko yëg googu nag bokkut ak tànt bii ñuy gis ak bindeef yi fi teew ndax bindeef yam yëg nañ ñu ngir yàlla sant nañ bëgg nañ ñu ngir yàlla sant nañ leen ngir yàlla ci seen ak dikk ak seen dem ak yëg gi nu am ci nun sant nañ ci baax a baax ndax suñu bokk yi wala léeb na ne nit munta baax ba gëni bokkam mm. munta baax ba génni bokkam itam mm. kon suñu biir bokk la nekk ci la ñuy wax itam waaye sant nañ leen cant bu wér bu ñu leen cant ba noppi ne sant na Sëñ Tuubaa mu cant bu wér ci lu mu defal nu di ko yëg di ko dund ci suñu xol nga xam ne fi ak lu yu mel nii amul rek suñ xol du set fi ne lii li muy nur nur rëy daanaka du dara ci suñu yére ndax sultaan mur yu ëpp yii fop ay junni junni ñoo fi ñëw teew def lu ëpp lii fop ci ay junni junni defi ndax suñu borom loo ko gën a sant mu gën laa doon la in sakkatum la azidannakum wa in kafartum mu inna azabi lashadid sant rek seen muy sant rek kuy doon ko koo seen muy xara bi jàll teel ndax suñu borom moom soxla la bëgg di ko sant mu dara doon kon bu ñu sant yàlla ba àggal ñu ngi leen di bëgg ndax suñu mbokk yi ak xar yi ak wëllër yi ak taalib yi ñoom ñëpp teew na tey mën naa wax ne lu mat manqué benn weer bis bu xëyee ci li leen xëy di ko woote yàlla mi nga xam ne moom moom ci bind bokkunu pen nag mu indi ñu ak ci bis bi ñu bëggoon kon war noo sant yàlla baax a baax ndax ñu bari dem nañ fi te àndoon ñu liggéey bi ñooñu yàlla yàlla yokk yërëm yàlla yàlla dugal leen ci biir Xaadimu Rasuul amiin yàlla yàlla defal leen aljaan fii ci kër gi rek am na si kuy wax Ousmane Ba fii la nekkoon ci gannaaw kër gi ma ngi feebar fi ñu yóbbu ko jaaru mu wàcc fële gi ci luy toll fukki fan am na ñeneen ay ñoom Mansour Fall ñoom ñi mun ko lim ay sëñ daam ja ñoom ñu bare bare ñu ci yaar mënuñu koo lim suñu borom mënu ko gën a xam kon lan lan lu sotti xew rek fa ñu nekk ñi teew fii suñu borom fajal seen aju rek ndax yàlla buur bu rëy la bu yaatu bu tabe boo ko ñaan danga ko ñaan lu rëy rëy mu def ko ñëpp amandoo ko mu pare nit ñi ko ndax yàlla lu maye kat duñ ca nangu ko may ba léegi yëpp a ngi ci te catni ko su ko day dolli ko ko ñaan mu defal lu rëy lu yaatu loo xam ne xéwal bu yaatu yëpp lañ ciy lañ loolu nag muy fan yu gudd te wéral nu te musal ci noonu fajal nu aaj yi suñuy suñuy soppe defal yaram yu wér defal lu xéwal yu baree bare bari ndax ku ne xam ne ne suñ mbokk yi ñetti fan yëpp ñu ngi ak àll bii ni mu nooyee ak ni mu ngelaw tey waaye teewul kenn jàmbatul dara am na jenn jëwriñ di toog sama kanam fu magal gouvernement jege day xaw a tàng ne ma daal gouvernement dañoo def war yi ma ne ko daal buy jàmbat man sant laa war tent nag ku ko woote boo bëggee jàmbat ñuy yar mënuñu am ndax dox jëm penku jëm soowu kat minutes booba da ngay jëm penku rek te biir bi nag wax léegi euh, am na sunu mbokk moo xam ne ku bi ko dégg léegi suñu maire bi ko dégg léegi ku xalifa jat yi maire bu ma ngewul ba mu ko déggee sol na dalam woo leen ba ñu wi mu ne leen incha allah loolu bu ko kenn wax yónnee na préfet message léegi gis naa ko ne ko lii moom bu leen ko waxati moom lu sotti ba noppi kon nag ñu ngi koy sant bu baax di sant maire di sant préfet bi ndax bu mu dikkee fii daf ma ne sëñ bi defal demande courant bi ma yóbbul la ma def demande courant mu ne bu ñu tabaskee ba ci gouverneur du jox nu moom ba ci gouverneur ak sëñ Mourgui Sarr mais nu bokk tooga moom mu jox ko nu waxtaan fa lu bari booba du dem di ko topp ba mu yàgg xalifa ji mi yëg ko di ko wax sama benn wër mën ne ko suñ fal nu bokk benn moom mu ne ko dëkk mbëri courant mu ne ko lool kay taxaw bi ñu ci jaaxlee nag bërki bii am na ki ko nattoon jëlee ko Dakar ci ma nekk Tuubaa ci romb mu ne maa ci daara ma ne ma ne ko woowoon naa ko ñu wax Bamba Thiam bu Sare ci waxtaan moom bi ah, kay mu ne ko jëlil yëpp yoo sax meer jotu ko yëg ndax bi ñu suba la màggal gi la nu daal di ànd fii tey ko su watoon kaw nu daal fii jógee dem ndam ci la dem déewum ñaar déewum yëpp jógee fa dikk war dem ndam ci dikk fii te suba sa boo xëyee man bu doon léegi ma jël bu may mun sax ndax lépp gën a gaaw te moo gën a rëy moo ci tudd moo ci gën a rëy kon xalifa ñi koy sant di sant préfet mii waxoon ne dundal ma joxeel di sant maire ndax maire ba ma ko waxee loolu ba léegi bis bu ne mi ngi woo xalifa xalifa ji tey rek a ci mujj kon loolu daa mel ni ñu ngi ci am yaakaar yàlla na ko euh, dëkk bi bi ko santee ko nga xam ne ndox bi njëkkoon manqué bi taxawu na ba lépp ñëw na euh, lu ci bari am di des bi ak yoon bi yoon bi prix bi mu fi nekkee moom dund ci ba tey moom dañ ko affecté euh, Colobane waaye remplacement gi moom duñ ko maanaam ko ni am kon léegi mbir maa ngi taxaw leen bu loolu jàllee nag mu des sant suñu rakk yi ñu àndal ñu wax nga xam ne kenn ñoom yu ni wax ji naru moo na wax ndax li tax naru ko mooy wolof dem ne kudd ku am doole dëgg la de Cheikh Modou suñ turuloo def ne woon yoon boo ci amee mag am ci rek jërul ngay son nel galas rek waaw kon nun rakk yi mag yoon am nañ ci mag am ci rek te ku ci na doy na maag ñu naan duñ def naan suba mbaa wax nangam wala bu suba di def naan déedéet doy na surtout nag kii naan duñ naan bu ngeen dee wax leen nangam lu ñu wax rek doy na minute lu ñu wax doy na hmm. su ma doon wax ñu ne bul wax it damay bàyyi rek dëgg la de ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag alxuraan ji ndax am na ku ñuy wax sëñ ma jang jàng mi ngi ci mbooloo bi daaram jàng nañ téeméer kaamil sëñ Cheikh Sall bu jóg daaram jàng nañ ñaar fukki kaamil am na nag ñaar yi ñeent yi mënu ma ko nga xam ne liñ ci wàccee teg leen ko fi Mourou Fatick daal ñoom nekkal ba sax suñu borom rek ko xam xasida it moom itam dégg nga loolu jànkat yi euh, ni ñu ko yàndoo fii te sant nañ ñëpp gërëm ñëpp kon li des ci wax bu subaa rek bu dajee bu ñu yewi nit ñi àggale ko waaye nañ xam daal foofu waay mën a jóge yëg nañ la ci suñ biir xol yëgal nañ ko sëriñ Tuubaa bi ñu amatul moom amatul yaakaar di la tudd carax yooyu di baax baax defe naa ne boole ko sëriñ Tuubaa mu fajee lu su laaj aaral lu mu enchir lu defe naa moo gën kon boole nañu sëriñ Tuubaa mu enchir lu saay mu bàyyi mu teewee ko fii dënën kenn ñu bañ a manqué te ñëpp am koom doon ay taal bi sëriñ Tuubaa ñu góorgóorlu waa rek dox ca kanam fañ a taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Mbacke. sëñ Fallou sëñ Bara Khourédia. sëñ Fallou moom sëñ Bara Khourédia. Euh, di